Euh, un tout petit peu inondation histoire Sonko ak euh, Bougane Gueye Dany wax euh, par rapport ak idée de report yi nga xam ne nemmeeku nekk aussi élection locale yi mhm. mu nekk benn débat aussi boo xam ne ñu ngi koy teg ci langue politique bi yéen au niveau de Pastef lan mooy ci seen xalaat waaw moom kilifay parti bi wax nañ ko nee il est hors de question que ñuy ñuy bouger nañ ko bàyyi ñi mhm. nga xamante ne moom la demee xam nga tey bañ ñëwee ne dañuy reporter mhm. fii ak euh, mars ou avril deux mille vingt et un on a suffisamment de temps pour organiser fi ay élections mhm. li nga xamante ne moo doon jaaxal ñëpp lan la muy Covid bi. Covid bi fi mu nekk nii gis nga ne ñëpp ñuy génn dox seen dox. Mhm. li nga xamante ne moo si am solo rek mooy gars yi respecté seen ay mesures rek et cetera et mhm. bi mun na mën a propager noonu la preuve fan yi sax man yi ma test yi ma gis ñu koy def ak résultats yi nga xamante ne ñu ngi koy indi. boo ko rapporté à benn échelle bi di nga gis ni daanaka mbir mi dafa commencé di wàcc tuuti. Mhm. yaa ngi comprendre donc nekkul loo xamante ne c'est gênant te fii ak avril 2021 am nañ yaakaar que yi nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee ci dialogue politique bi dina aboutir. ba nga xamante ne dañu mën a organiser élection yi ñu def ko. parce dàq élection aussi presque euh, dàq dàq yi presque neuf mois ou un an. Mm-hmm. bëgg a ñëwaat aussi bu ko pusaat nekk na loo xamante ne bon. mun ñu si ànd. mais Fadilou aussi ku wax Covid euh, doo rek euh, accentuer wu si wàllum santé bi dangay ngay wax aussi si wàllum koom. Mm-hmm. ñu gis ne Sénégal sax mun nañu wax ne un pour cent la nar a xaar si wàllum taux de croissance. Mm-hmm. est ce que loolu warut a tax ñu coupler élection yi nga xam ne mooy législative ak locale yi non xam nga tey euh, lu su mën di nekk rek. Mm-hmm. couplé ñàkk a loolu loo xam te ne dañ koy discuter. Mm-hmm. Pastef position am mi ngi koy définir ak ñi nga xam ñoom la àndal ci cadre FRN bi nga xamante ne moo ñu représenté ci dialogue bi. Mm-hmm. mais li nga xamante ne rek moo ci am solo moo di élection yi dañ ko war a tenir. tey ku gagné élection woote sa dialogue dem ba ci biir ne dama am cinquante huit pour cent li la arrangé yow li la arrangé mooy nga organiser ay élection bu nekkoon gars yi yi nga xamante ne ñu ngi ci dëgg war nañ see nekk tey élection yi nii ak seen chiffres yi nga xamante ne wax nañ ko réalité chiffres yi ñoo am ko élection yi dañ koy yi li nga xamante ne ñu ngi ko gis mooy commencé nañ ñoom wàcc ci terrain politique bi mm-hmm. commencé nañ bëgg def ay tournée économique et cetera loolu yëpp pour préparer ay local la ñu ngi nii naan dama jël Kër Massar di ko ériger en département yooyu yëpp ay préparer ay local la ñun nag du ñu mën a nangu koo xamante ne da nga yore nguur yore mm-hmm. yore doole état ak moyen wu nguur yëpp mm-hmm. bëgg taxaw préparer sa bopp ba xëy benn jour rek organiser loo xam ne daf ñuy bett dañu war a teel a jàpp date bi planifier euh, planifier ko ba pare respecter ko ñun ñëpp ñu mun ci ànd jongante ku si nekk lu lu borom may nga jël ko. ah sànq yaa ngi brosser tournée économique yi est-ce que tournée économique ak contexte inondation yi ak Covid bi le moment est bien choisi pour le président de la République. non xam nga xam nga xam nga tournée économique bon amul benn sens parce que mhm. moom defoon na ko fi. ak ces euh, conseil des ministres décentralisés yooyu mu doon organiser ci région yi mhm. fu mu dem dig fa ay mille milliards mais daanaka yi mu doon diggee yëpp defu ci dara Kaolack gee mu bëgg a dem fan yee passé laa fa jógee man bi may jógee foofu di ñëw maa ngi gis ñu annoncé na moom dafa waroon dem jaale ji moom président de la république maa ngi gis ministre bi commencé tali bi tali boobu noonu route principale route nationale bi di ko commencé ñëpp ñabal noonu di mhm. commencé defaraat mhm. foofu yëpp aj jafe mi ngi taaf fees dellu ak ndox mais aussi population yi war nañ gën a jug seen bopp tey koo xamante ne dafa ñëw sa dëkk dig la ay milliards dama ko fiy def port sec et cetera inauguré ay affaire teg première pierre mm. élection yi jeex résultat yi génn matériel bi yëpp ñu déménager ko liggéey bu noonu wax foofu amul bassin arachide yi la amay option yu extraordinaire amul dara loo xam ne ñu ko fi def tey bu tànnee localité boobu fi gën a nooy la tànn yaa ngi ko naan parce am na fa ñoo xamante ne ñoo koy jàppale yaakaar ne ne bu aussi li mel nar a wax nañ ko gëm mais nañ fàttali ko ne moo fa ñëwoon leen mm-hmm. te li mu leen digoon doxalu ko ko Mhm. donc ay loo xamante ne ay politique la rek moo ko lal quoi. ñu wax ci dialogue national euh, dialogue euh, politique bi ñu si gis ne 23 euh, points yi nga xam ne mun nañoo wax ne am na consensus mhm. mais am na ñaari point yoo xam ne ñu jiitale si li nga xam ne moo nekk statut chef de l'opposition gis neen yéen seen taxawaay au niveau de PASTEF est-ce que da ngeen a jàpp ne statut chef de l'opposition bi kii di président de la République Macky Sall da koo teg rek sur la table ngir ci langum politique raw rawatina ci ku waaw ku nekk xam nga ku nekk mën nga am conception ci ci ci ci li nga xamante ne mooy statut chef de l'opposition président Macky Sall mhm. euh, loolu noonu proposition ci moom lay émané mhm. xam nga euh, ba muy ñëw di préparer statut chef de l'opposition mhm. di ko dugal ci modification constitutionnelle 2016 am bële maanaam amul kenn kum ci waxtaanal ba nga joxe sa avis du parti opposition du société civile du observateur du kenn la preuve jamono boobu am na ay plateau télé yu bëri yoo xamante ni si ñu ngi doon dem di ko ñaawlu yaa ngi comprendre jigéen na si loolu avant loolu sax di am un mois juste avant la ñu ci am pour préparer pour dem ci ay référendum boobu nga xamante ne si la dugalee loolu statut chef de l'opposition mm. yaa ngi comprendre donc mu nekk loo xamante ne président Macky Sall ñun mënuñoo comprendre. nga jël mais mën si si moo ko fi njëkk teg. Mm-hmm. xam nga opposition. Mm-hmm. ak fii modalité détermination du chef de l' opposition. Mm-hmm. fii affaire chef de l' opposition la ñuy wax carrément. donc am na am benn glissement bu ndaw bu ci am. ñun mënuñoo ànd ak mënuñoo di di di politique ak jàkkaarloo koo xamante ne da nga def sa modification constitutionnelle unilatérale dugal ay HCCT yokk nombre euh, membre conseil conseil conseil constitutionnel ak et cetera et cetera def ko en un mois banque suñu loxo jàllale ko. Mm. ñu jublu si loolu nga yóbbu ñu si ay législatives yóbbu ñu si ay législatives en 2017. Mm-hmm. indi fii après ay affaire parrainage jóge ci loolu euh, yóbbu ñu ay élections yoo xamante ne c'était des élections chaotiques mm-hmm. carte fàtt affaire affaire carte d'identité yaa ngi koy fàttaliku ak affaire Daalu Diallo bi nga xamante ne moo ko yoroon indi fi ay jafe-jafe yu bëri si dëkk bi ne opposition bi da nga kaa bëgg a réduire à sa plus simple expression. teg ko ay coono yu dul jeex tey nga xëy ñëw bëgg ñu indil ay chef de l'opposition ñu ci daw ci ginnaawam duñ daw ñun suñu légitimité bi ñu am du jox ñu post chef de l'opposition wala wala wala wala jox ñu ay moyens wala en tout cas organiser de sorte que moom bu ñu soxlaa rek dañuy ñëw di teew loolu moo ñu ko jox légitimité bi ñu am peuple bi moo ñu ko jox on l'a déjà eu à l'issue des élections apprécié nañ ko xam nañ fu mu toll. troisième quand même euh, Fadilou si de de deuxième euh, si gannaaw euh, kii nga xam ne mooy sa Seck est-ce que aussi c'est pas un peu prétentieux de la part de de du président Ousmane Sonko mu ne moom amul chef de si si opposition bi aussi. xam nga xam nga xam nga prétention du prétention yëpp a bon. ñun aussi moo ko jox troisième. mais loolu laa ñëw di la wax ni <laughs> xam nga loolu c'était une victoire c'était yoo xamante ne ñun gëmuñu ko. Macky Sall. Ah xam nga ñëw rek wax la Macky ah. Sall li mu doon xeex li mu bëggoon moom ak ñeneen ñi ko doon dimbale ak yeneen puissance étrangère yu nekkoon ci ginnaaw mm. mooy di Pastef bañ a egg deuxième coalition jot na bañ a ñëw deuxième réunion am na fu nekk loo xamante ne ñun xam nañ ko mu jëlal ko lu nekk nag score bi mu génnee du score boo xam xamante ñun gëm nañ ko victoire mécanique la am léegi nag ñun bu nekkee dafa nekk di gouverner xeexuñu xuloo ak moom na gouverner ak ay moyens mais ñun aussi la nga xamante ne moom lañu am moom lañ mën a apprécier langue politique bi actuellement lu ñuy peser wax ma ne xam nañ ko au pied de la lettre de mais am nañ ci appréciation bu baax a baax a baax a baax a baax a baax bu dara wax naa léegi élection yi chiffres yi nga xamante ne moo fi génn ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu kanam ñun jàpp nañu ñoo nekk suñu kanam pour nga la moo tax dama la expliquer sànq chiffres yi ni mu demee ak lak lan ñenn façon nit ñoo regroupé wu pour a am façon ñun suñu 15 pour cent déggoo la moo ñu gënal cinquante pour cent wu keneen. mais bii Mbicé bi am seen diggante te ñu wax ne te mun nañoo ñu wax ne élection yi passé yéen da ngeen rattaxoon ak euh, trop ak Idrissa ne carrément même sax si vous faites partie euh, de l' opposition euh, dafa am benn rivalité bu am seen biir est ce la république si galgal bi mu dugal il n'a pas réussi son coup aussi. benn problème ak Idrissa Seck. ah Idrissa Seck acteur politique la mu ngi liggéey liggéeyam. Euh, non guerre bi métti na nag ci biir réseaux sociaux yi nag. entre réewmiste yi ak euh, Pastef ak euh, les patriotes. waaw xam nga nit yi moom nit yi moom ku si nekk réseaux dafa nekk loo xam ne dafa ouvert doo xam sax kan may wax nit dina ñëw ne man réew mi laa bokk fekk Pastef la bokk nit ñëw ne sol yére ne Pastef laa bokk fekk réew mi la bokk donc loolu dafa nekk loo xamante ni ñun mënuñu ko apprécier trop mais li am ba am mooy Idrissa Seck acteur politique mi ngi liggéey liggéeyam mais mucc boo xamante ne ñu ngi woo sénégalais ci ay mbir ñu ngi ñuy te incha allah fulla fayda bi mbir bi laaj ak xam-xam ak fit bi mu laaj ñun incha allah ci loolu lañ nekk jeex na. Mhm. amul problème amuñu benn problème ak Idy Seck. Mhm. du ñu euh, am problème d'ailleurs. beneen débat boo xam ne aussi euh, d'accord ci ci au niveau du dialogue national euh, doon chef de parti nekk chef de l'État aussi yéen benn lecture ngeen ci def aussi. ñun suñu parti ci texte yi. Mhm. boo ñëwee dafa ne bis boo nekkee président de la république ci saasa da ngay perdre sa poste chef de parti ñun suñu texte la nekk ñun. waxuñu ko nii de di ko proposer nii de dafa nekk suñu ay texte ñun suñu programme jot na dañoo proposer ni munoo nekk président la république ba pare di nekk chef de parti ñun dañoo ne président de la république responsabilité am dañ koy mën a engagé ñun dafa am affaire yoo xamante ne gis nga yu bëri yi fi nit di coow. fii nii mhm. ñun dafa nekk suñu programme yenn yi dafa nekk suñu ay statut yi nga xamante ne moo régir suñu parti politique ni muy doxee donc dafa nekk loo xamante ñun tout naturellement si inconcevable nit ak sentiment am ak ay bëgg-bëggam mun a nekk président de la république pare nekkaat chef de parti. Mhm. c'est sûr que dina am ay situation de conflit d'intérêt yoo xamante ne yow doo apprécier li gënal askan bi mais ñi nga xamante ne nga moom nga àndal si wàllu politique bi ak la mën a may nga pérenniser bopp pouvoir loolu ngay seet. Mhm. donc nekk na loo xamante ne ñun soxlawuñu ko bëgguñu ko te loolu nekkul loo xamante dafay jëriñ askan bi. Mhm. débat si troisième euh, mandat kii di président de la république mu mel ni comme da nga koo tegaat aussi euh, sur la table ak limogeage kii nga xam ne mooy euh, le directeur de Dakar Dem Dikk yéen benn lecture nga si ngeen si def au niveau de PASTEF avec les événements qui se sont aussi en Côte d'Ivoire et foofu la si au niveau du Mali. bon xam nga tey ñun débat troisième mandat bi ñu koy ni si di yëkkati. Mhm. administrateur suñu parti dem na émission. Mhm. yóbbu kàddu parti bi maanaam wax ñëpp que ni nekk na loo xamante ni ñun suñu débat intéressé wuñu pourquoi non intéressé wuñu parce que tey euh, déjà en 2012 Macky Sall bi ñu koy fal dañ ñëw ay bakkan yu bay rot lu mat 11 wala 12 personnes gaañu ci pourquoi lan moo indi woon loolu manifestation yooyu mm. affaire troisième mandat moo taxoon Macky Sall taxaw fu nekk ne dafay liggéey ci limitation de mandat ba mu defee modification tamit limité mandat yi à deux taxaw fu nekk di ko wax bu dàqee ay nit ndax dañoo wax ko troisième mandat loolu su ko neexee mu def ko mais ñun li ñu xam te président Ousmane Sonko wax ko mooy 2024 incha allahu moom du nekkati président Sénégal un point c'est tout loolu mooy si ak idée grand serigne de Dakar muy wax ne pour ñu dem vers un référendum pour trancher cette question aussi waaw kooku tamit daf ñuy yee rek ci ne Euh, ñun suñu kilifa yi aussi am na ñenn ñoo xamante ne war nañu xoolaat seen taxawaay parce que am na loo xamante ne dara jar ko ci àdduna boo liggéeyee góorgóorlu sonn yàgg a effort mm. te gëm naa ne Abdoulaye Makhtar Diop ci yàgg a Sénégal la bokk mm-hmm. parce yàgg nañ ko gis assemblée nationale ak yenn poste ministère yi nga xamante ne mos na koo yore tey bu ñëwee bay wax la ñun dañuy am méttal trop parce que nañ fi benn vidéo boo xamante ne mi ngi toog nañu def référendum pour xool affaire troisième mandat ñun dafay nekk loo xam ne daf ñuy bett tuuti daal parce que ñun li ñuy yaakaar ci kilifa yooyu mooy profiter seen expérience mooy teg leen seen kanam suñu kanam ba ñu gën ñoo won yoon mais suñu la gisee ngay doxal loo xam te ne nekkul yoon da ngay ñuy décevoir ba pare am na yu bëri yoo xam te ne doon nañ ko yaakaar ci yow donc duñ ko mën a am ci yow Mhm. donc dafa nekk loo xamante ne man de déception laa ci am. ñu génn un tout petit peu ci politique wax par par rapport ak euh, Covid 19 bi ñu gis ne comme ni nga ko waxee les résultats les chiffres certes ñoom ñu ngi am benn baisse. Mhm. mais gis ne aussi euh, le ministre du transport xam ne ni fu mu toll ni oto yi mun nañu feesal euh, comme ni nga ko waxee loolu le président de la république ak gouvernement am dañoo démissionné carrément ci xeex bi nga xam ne mooy bas bi démission kenn waru fee mën a dàq élection ndax Covid. ñu ngi joñante ñu ngi gisante ñu ngi toog di waxtaan. Mm-hmm. est donc euh, ñoom tey bu ñu xëyee xëy décider ni dañ ko kii xam nañu am nañ ay chiffres bon constaté nañ dafa am benn baisse moo tax ñu bëgg a euh, maanaam élargir yenn décisions yi quoi bàyyi ni ñu nekk ci aisance bi nga xamante ne nekkoon nañ ci. barki démb damay sànni benn reportage bu am diggante France ak Allemagne. Mm-hmm. ñu def test yoo xamante daanaka ñoo tolloo ay nombre yu ñu def xaw ma ay dix mille mais résultat bi mu ñëwee Allemagne dafa France dafa nekk ci quarante deux mille Allemagne nekk sept mille te pourtant Allemagne mhm. rigueur bi France am mhm. ci application yenn yenn yenn yenn mesures yi mhm. Allemagne amu ko parce que France même à l'extérieur dañuy obligé nga takk masque Allemagne loolu amu fa masque yaa ngi koy takk ci biir yenn commerce yi ak yenn surface yi nga xamante ne dafa xaw a fermé wu ñoom ñu ngi doon posé question di bëgg xam lan moo tax mesures yi corsé fii nii te pourtant résultat yi mi ngi gën a baaxee Allemagne au niveau aussi de de de la CEDEAO am na benn rapport boo xamante ne man consulté naa ko aussi bi ñuy jàngat affaire euh, Covid bi gis Sénégal bokk na dëkk yi nga xamante ne moo ci ëpp ay mesures yu mu jël. mais in nekkul ne moo ci gën a baax les résultats. Mm-hmm. donc dafa nekk mbir yoo xamante ne daal da ciy dem ak intelligence. waaw boo demee intelligence ak mun naa am rëq-rëq yi lu bëri quoi. Mhm. Mhm. ñu wax aussi si beneen décret bu wàcc moo nekk par rapport ak interdiction consommation chicha fii au niveau du Sénégal euh, observateur yi bëri jàpp ne que c' est une mesure à saluer certes mais il y a autre chose plus dangereux que chicha boobu mu nekk cigarette beeg alcool bi nga xam ne xale yi ñu ngi koy tuxu. Euh, mais am na lu gën am na lu a graaw loolu sax. Mhm. fii jàpp nañ fi drogue saisir ko. bi ñu saisiree drogue bi gis nañ fi benn homme de bu toog ci télé ne direct bi ñu jàppoon saisir ko am na benn ministre boo xamante ne dafa woote daa ci wàllam ba tey ba sànq kenn woowu ko laaj ko li mu wax noonu fan la ko jëlee. c'est terrible ba tey ba sànq ministre boobu kenn woowu ko daa ko ci gouvernement bi. Mm-hmm. is yaa ngi dégg économie sereine bi moo ñu yàqal lu bëri fii Sénégal donc man lu seen mesure yu seen mesure yu ndaw yi nga xamante ne amul accompagnement du am benn suivi amul benn njëriñ pour man c'est des mesures yoo xamante ne dañ ko def juste pour maanaam def artifice. wax ni waaw voilà artifice tàppale mais dem ne. réforme boo koy def ak mesure boo koy def man dama nekk France di jàng. Mhm. ñu xëy ne cigarette dañ koy gën a cheral parce que dañu gis ne consommation cigarette dafa bëri. mu mhm. bi a ko cheral. Mhm. ba pare jël ay mesures ci espace public ne kenn du fi tux di ko surveiller. année boobu noonu ñi bàyyi France tux dafa bëri c' est des de personnes ou des milliers de personnes yoo xamante ne dañoo bàyyi tux en France loolu c' est des mesures ñu jël alcool bi nga xamante ne gars yi dañu ko doon tax yu métti dina tax su boobaa li nga xamante ne nga moom nga bëgg di nga ko am. ku bëgg consommer produit yooyu di nga débul xaalis boo xamante ne soo mën sax du la ko jaralati nga bàyyi mais Fadilou bu ñu xoolee aussi euh, industrie yi yëngatu fii ci wàllum alcool ak tabac fii au niveau du Sénégal lu ñuy apporter aussi économiquement dafay am doole bu baax est-ce que loolu état bu Sénégal dina jël risque di xeex ak ñooñu aussi secteur informel li nga xamante ne moom lay indi ñooñu ñëpp indiwuñ ñooñu ñëpp indiwuñ ko mais encadré wul leen loolu dama njëkk a def effort encadré ñi nga xamante ñoom laa war a encadré agriculture baa ngi nii tey balaa maa def dara damay dem fexe agriculture nu ngi koy yaakaar ne leen ñu mu jàppale sénégalais yi parce que tey ji mu si jugandoo ñun ñëpp mun nañ am ay résultats extraordinaire autosuffisance mun nañ ko am mun nañ am sax bay génn jaay bitim réew mhm. def ma loolu yëpp ma jëm fii di wax ay mesures yoo xamante ne c'est des mesures yoo xam c'est des mesures individuelles quasiment particulières yoo xamante ne que li ko war a accompagner yëpp ci ay autres mesures yoo xamante ne mhm. ko def donc tey tëba wax ci waxu tabac tëba tëb wax ci waxu alcool et cetera et c'est pas important li am solo moo di organiser ko de sorte que boo ko defee. mu am pertinence par rapport ak ñun lañ cay xaar ak la nga ne